nun bi qurbil madinatil munawwara fa qaala manil qawmu ana nit ñooñu xaaloo ñu ne ko al muslimoona nun ay julit lanu ay julit ne ko man anta ana yow nag xaala mu ne rasulullahi maa yonante yàlla ba farafaxat te yëkkati ilayhi jëm ci moom imraatun jigéen sabiyan gone fa qaalat mu ne ko ali ndax ñeel na gone gi xajjun aj xaala mu ne ko naxam waaw wala ki te mbir moom ñeel na la ajrun yoolub aj ga rawaahu muslim ibnu xabbaas ne yonante bi dafa tase woon ay gawar ca fa ñuy wax ar rawxaa ne waaw ñoo ñum doon ñu ne ko nun day ay jullit lanu te ki ne ko waaw yow nag yaay kan ne man day maay ki yàlla yónni ci yéen jenn jigéen daal jàpp ci përëgum gone wan ko nekk waaw kii moom ndax ku ko ajal aj ga dana baax mu mel ni am nag aj mu ne ko waaw ku ko ajal aj ga dana baax te yow mi ko ajal yàlla dina la bindal tuyaabay ajal googee nga ko ajal nga xam ne kon gone doon di daa toll ci nàmp xàmmeegut mënees na ko ajal ni koy jàngee ci téere fiq yi nekki ci muxtasaru xalil daañu fa jàngale nañ koy defee gone dañuy jàpp ne bu xësee xàmmee moom duñ ko bindal bàkkaar waaye daañu koy bindal tuyaaba ak yiw ca lu baax la muy def lu baax lañ koy teete ba mu def ko kon gone manees na ko ajal maanaam ànd ak moom ci aj ga rawante ne bu demee ba amuk xàmmee nga xam ne at yaa matut waaye am na xàmmee ci la muy def loola nag du doon farataam faw bu kàllafee war a ajuwaat وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه نكم قال وخونا الخاسن أجدان تجاه almuslimu kadi ab julit al aminu kadi ku ñu wóolu allati ka nga xam ne yu nafidu dana wéel maa la nga xam ne umira digaleef na ko bisi ci moom fa yutihi dam koy joxe kaamilan mbir mu mi aji mat mu waffarante lu ñu lëwal tayyibatan mbir mu mi aji teey bi ci moom nafsuhu bakkanam dafa fahuhu tem koy jiñ ilal lëf yi jëm ci ka nga xamee ne umira digaleef na lëfoo ñeel ko bi ci ca loolee ahadul mooy kenn ci way saraxeña wala ahadul mutasaddiqayni mooy kenn ci ñaari way saraxee ya muttafaqun alayhi wa fi riwayatin ëllës yi ka nga xam ne yoxti dana joxe maa la nga xam ni umira digaleef na ko bii ci moom wa dabatoo takk nañu maanaam maas nañu al mutasaddiqayni bi fathil xaafi ci fataa xaaf ga maha kasri nuuni ànd ak kasra nuun ga xala tasniyati ci tasniya waxak sihi akub sofaanam xalal jam ci kaw jam jamhu wa kilahuma képp ci ñoom ñaar saxiixun aji wér la abu musa al ashari moo nettali ne yonent nee na woon ku ñu dénk alal nga doon ko jub buñ la ci joxeloo nga topp ndigal la joxe loolee kañ la ko joxloo bu dee lu jëm ci lu baax lu ñuy def it buñ la ci joxeloo bu la borom alal jëne defal ma ca nàngam nga yëkkati loole def ko ca ànd ca yéene ju sell day mel ne yaa kamam alal ja ba dénk la ko ba lay wax joxeel ma ci nàngam yéene yam tuyaaba ju am ca loolee nga di ko joxeel rek yooyu danga nga ca am tuyaaba ju tol noonu jullit boo xam ne doo du jub ñu wóolu ko di ko dénk alal saa yuñ ko waxee ne ko alal ji jox ci diw mbaa jël ci def ci nangam lu baax lee bu daldi koy defee noonee ñu ko waxee ànd caa xool bu sedd bu ca jooy dara kookee day na borom alal ja di amee tuyaaba ci loolee moom it noonu la ci amee tuyaaba ahadul mutasaddiqiina ak ahadul mutasaddiqayni lu ci nekk mënees na koy jàng bu dee ahadul mutasaddiqayni muy tasniya bu dee ahadul mutasaddiqiina muy jamxu mudakkar baabun nasihati lii mooy buntub laa biire qaala taxaala innamal muminuuna naka way gëm ña ixwatun ay mbokk lañu loolu ma nga ca suratul xujuraat laaya ba tolloog fukkeel ba wa qaala taxaala suñu boroom wax na ixbaaran ci ak xibaar xan nuuxin jële ci nuux sallallahu alayhi wa alihi wa sallam te danaa laa biire lakum ñel leen ma nga ca suratul axraaf laaya ba tolloog juróom benn fukkeel ak ñaareel waxan xóodin ak ba muy xibaar ci mbirum xóot sallallahu alayhi wa alihi ne wa ana te man naasirun aji laabiri laa lakum ñeel leen am yenun ku di kuñ wóolu ba tey ma nga ca saaru laxraaf laaya ba tolloog juróom benn fukkeel ak juróom ñetteel day wax ci bunt bi li ñuy wax laabire laabire moom dafa rëy lool ndax mooy jullit ñëpp nga yéene leen aw yiw di leen ko waxal di leen ko jéem a defal lépp loo xam ci lu baax loo xam ne boo leen ko waxee ñu def ko jariñ ñu ca nga wax leen ko lépp loo xam ne xam nga ko ci safaan ba boo leen waxee ñu moytu ko ñu moytu ko rek mu baax ñu mucc nga xamal leen ko laabire googu day lu rëy lool ci lislaam nga wax nga ci bunt bi lu ci aju mu njëkkee ci alxuraan ne suñ boroom nee na ñi yàlla ñëpp ay mbokk lañu kon nag kenn ku ne daa war a jàppee sa moroom ne sa bopp di ko laabire ci lépp loo xam ci lu baax tegtal ko ko lépp luy safaan bu ko mën a lor te nga xam ko te boo ko waxee jàmm rekk ci njëkk mujj ca nga xamal ko ko ndax moytu ko ba tey ba muy nettali mbirum yonante yàlla Nuux ak yonante yàlla Hóot ku ci nekk ba kay wax ak say nit danga leen a xamal ne leen dama leen di laabiri rek yéene leen aw yiw waaye du leneen nga xam ne kon ko yàlla yónni ku ne dana laabire aw nitam ci xamal leen lay tax yu ñu nekk seen boroom xamal leen laytee ñu mën a moom ba ñu mën a def la yàlla gërëm moytu la yàlla bañ ndax ñu mucc yàlla gërëm leen tàbbal leen ci këru teraanga ga wa amal ahadisu ndaal addis yi fal awul aji jëkk ja xan abi ruqayata jële nañ ci abi ruqayya tamim ibni awsin turam mooy tamim ibni aws addaari radiyallahu anhu anna nabiya sallallahu alayhi wa sallam qaala addiinu diine daal an nasihatu mooy laabiire xul naan wax ko ne ko liman ñeel kan lañuy laabiire xaala mu ne lillaahi ñeel yàlla wali kitaabihi ak ñeel téeréem ba wali rasulihi ak ñeel yonanteem ba wali aimmatil muslimina ak ñeel kilifay jullit ñi wa ammatihim ak mboole seen rawaahu muslim ku ñuy dàkkantale aboo ruqayya mu tudd tamim ibnu aws moo ne yonante bi nee woon diini daal lépp génnut laa biire wax rek laabiire ni mu réyee ci diine man ne ba mu waxee ne alxajju arafatu aj mooy arafa arafa dong du aj waaye nag arafa daa rëy lool ràññ ko lool ci biir aj ba nga xamee ne bu xasee teewi arafa rek aj rawatu la te bu la arafa rawee rek aj raw na la ba déwén nga fay si ko lu mel noonu la wax fii ne laabiri daal mooy diine mbaa boog lépp diine daal mooy laabire fekk na laabire du lépp diine waaye te caaraañu ko lool ñu ne ko waaw ku ñuy laabire mu ne ab jullit day laabire yàlla boroomam laabire alxuraan yi boroomam ji laabire yonente boroomam bi laabire kilifa jullit ñi laa biire sax mbokk juutamee ci des laa biire ñëpp rek fekk na boo ko dee seet laa biire gi yàlla ak alquran ak yonante bi ak kilifa jullit yi ak mbooloom jullit yi lépp njariñam lay doon moom yi def laa gi ndax la say njariñ la ci ci moom lay dellu si nañuy laa suñu boroom mooy rek gëm ko wéetal ko taxaw ci la gëm ga ak wéetal ga laaj kem sa kàttan laa biri alquran mooy gëm ko nañ ko wara gëme di ko jëfe kem sa kàttan di ko aar kenn bañ a jëmale ci moom luñ ca war a jëmale kem sa kàttan laabire yonante bi mooy rekk gëm ko taxaw temm ci matale àqi gëm nga sunnaam si mu fi bàyyi nga taxaw ca kem sa kàttan di woo itam jaami yàlla yi jëme leen ca kem sa kàttan kilifay jullit ñi ñenn ñi mooy boroom xam-xam yi ñenn ñi mooy ña yore nguurug jullit ga ñoo ñëpp nag laabire leen mooy déggal leen topp leen ci lépp la ñuy santaane te mu doon ndigalul yàlla ak yonante bi di leen dimbale itam ci taxawal yoonu lislaam ci kaw suuf kem sa kàttan laabire mbokki jullit ya ca des nag moom moo gën a yaatu mooy mboolem ñi nga xam ne yéen bokk lislaam ji rek kenn ku ne nga jàppe ko ne sa bopp di ko yéene la nga yéene sa bopp di ko waxal lépp lu baax di ko ko defal lépp loo xam ne boo ko ko waxee mu topp ko jariñu nga wax ko ko lépp loo xam ne mat na koo moytuloo ndax mu mucc nga moytuloo ko ko ndegam boo ko waxee jàmm rek njëkk mujj ca attaani xan jarir ibni abdillah radiallahu anhu qaala baayatu jaayante woon na maag rasulallahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ala iqaami salaati ci taxawal julli wa itaai zakaati ak joxe asaka wa nafsi ak laa biire li kulli muslimin ñel bépp jullit muttafaqun alayhi jarir ibnu abdillah nee na bàyyi jaayanteeg yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam dama jaayanteeg moom ci di taxawal julli juróom di joxe asaka ak laa biire bépp jullit jàppe ko saa mbokk di ko yéene la ma yéene saa bopp lépp lu ma defe ne dana ko jariñ ma di ko ko waxal ak defal ak taalisu ñetteel bi xan anasin radiallahu anhu an nabii sallallahu alayhi wa alihi wa laa yuminu du gëm kenn ci yéen xataa yuxibba ba te mu soppee li axiihi ñel mbokkam maa la nga xamee ne yuhibbu dana ko sopp li nafsihi ñeel boppam muttafaqun alayhi anas moo wax ne yonent bi nee na woon kenn ci yéen balaa am gëm gu mat sëkk daa àgg ci lépp lum bëggal boppam bëggal ko mbokkum julitam loolu day nuru lu jafe waaye ndegam yàlla moom lim am du jeex te li nga bëggal sa bopp lu mu rëy rëy yàlla mën na la koo defal defal ko it sa mbokkum jullit mu mën di doon kon man nga yéenee ko ñaan li nga bëgg ci aw yiw yàlla defal la ko defalaale ko mboole mbokki jullit yi baabul amri lii mooy buntub digle bil maaruufi ci lu baax wan nax yi ak tere anil munkari walis lépp lu bon al dañ koy wax ci lépp lu lislaam jàppe lu baax taamu ko al munkar ñu koy wax ci lépp lu lislaam bañ qaala allahu taala waltakun na am minkum ci yéen ummatun mbooloo yeddu xoona moom danañu woote ilal xayri jëm ci yiw waya amuroona te ñuy digle bil maarufi ci lu baax wayan xaw te ñuy tere anil munkari walis lu bon wa ulaayka ñooñee nag hum ñoom almuflixoona ñoo di way texe ña loolu ma nga ca suuratu ali imran laaya ba tollook téeméer ak ñeent day wax ci bunt bi digle lu baax ak aaya lu bon ni ko alquran diglee ak ni ko addis diglee muy loo xam ne kenn ku ne war nga caa taxaw ca nanga ko mane lim tàmbalee nag moom su boroom moo wax ne yéen jullit ñi na am ci yéen mbooloo moo xam ne dañuy taxaw temm ci doo nit ñi jëme ci lu baax di digle lu baax di aaye lu bon ndegam yàlla mi bindu yemalewut jullit ñi ñëpp maasiwuñ ci xam lu baax ak la bon ba mën digle lu baax mën a aaye lu bon mu nekkoon nag na am ci yéen na am ci seen biir mbooloo moo xam ne dañuy taxaw ci di nit ñi jëme ci lu baax di digle lu baax di aaye lu bon ñooñee nag ak ña topp ca ñoom ñoo di ña nar a bu ëllëgee ànd ak ngërëm wa qaala kuntum nekk ngeen xayra ummatin di ngeen ji aw xeet uxrijat wow génneef na ko maanaam feeñaleef na ko naa si ñeel nit ñi ta'muruuna da dangeen digle bil ma'ruf ci lu baax wa tanhawna da ngeen di tere anil munkari walis lu bon ba tey ma nga ca alu imran laaya ba tolloog téeméer ak fukk sun borom ne yéen xeetu muhammad yéen a gën wépp xeet bu yàlla mas a feeñal ci kaw suuf ni muhammad gëne mboolem ñi yàlla masa yoon yónni yéen xeetam wi noonu ngeen gëne ñépp ñi yàlla mas a feeñal ci kaw suuf bokk na ci nag la tax ngeen gën digle lu baax ak aaye lu bon am ci yéen ñoo xam ne dañuy taxaw temm ci xam lu baax di ko def di ko digle xam lu bon di ko sori di ko soriloo ñeneen loolu bokk na ci li tax ngeen doon xeet wa gën a ràññiku ci kaw suuf wa qaala taala xud jàppal alxafwa la jàppandi ci nit ñi wa amur te nga digle bil xurfi ci lu baax wa axrid te nga dëddu anil jaahiliina walis way xamadiña xusil xafwa mën naa firi jàppal ak la waaye neen daal maanaam xud maa tayassara minan naas nit ñi duñ ay malaaka nit yi kese lañ kon nag la jàppandi ci ñoom rek na la doy sëkk ci ñoom nga leen di digal lu baax di leen aaye lu bon te nag ñu xamadi ñi moom bu leen topp seen xamadi googee loolu ma nga ca saaru al araaf laaya ba tolloog téeméer ak juróom-ñeent fukk ak juróom-ñeent wa qaala taala way gëm ñu góor ña wal ak way gëm ñu jigéen ña baaduhum lenn ci ñoom awliyaau baadin ñoo di ndimbali ña ca des yaamuroona danañu digle bil maaruufi ci njekk wayen xaw na te ñuy tere anil munkari walis lu bon wala ma nga ca suuratu tawba laaya ba tolloog juróom-ñaar fukk ak benn suñ boroom ne ñi gëm ñenn ñuy góor ñenn ñuy jigéen dañuy bëggante ngir yàlla di digle lu baax di aaye lu bon kenn ku ci ne tey dimbalanteeg moroomam ci sax ci la yàlla bëgg fu ñu gisee lu mat a digle ñu taxaw ci digle ko fu ñu gisee lu mat a aaye ñu taxaw ci aaye ko xam nga ñu xam ne lay tax mucc ak lay tax a am ngërëm moo di sax ci lu baax te sole lu bon day tax ñuy dimbalante ci kaw di digle lu baax ak aaye lu bon wa qaala taala lu'ina rëbboof na gaa ya nga xam ne kafaroo weddi nañu min bani israila ci bani israil ala lisaani daawuda ci làmmiñu daawud wa xiisa bni mariam ak xiisa bni mariam dalika loolee bi xasaw nekk na ci lañu moyoon wa kaanoo te ñu nekkoon yaa doona di ko jalgati kaanoo nekkoon nañu laayatana xëw na duñu tereente duñu aayente xan mun karin wëris lu bon faxalooxu loolu def nañu ko la sa bon na maa la nga xamee ne kaanu nekkoon nañu yaf xaloona di ko def ne banu Israël am na ca ñoo xam ne dañu daan sëgg ci lu bon te kenn du aaye sa moroom nga xam ne ku ca gis kenn du xëtt ndigal di def lu bonit doo ca wax dara loolee nag moo tax daawuda ñaan yàlla ñam taseeloon ca banu israil ba yàlla soppi leen i golo ñu nag mooy ñu nekkoon ca dëkk ba ñu wax ay la bañ leen aaye napp jën ci bisub gaawu te yàlla nattoo leen ci bisub gaawu moom jën yi day bari lool tëmb neex a jàpp te nag bis bu dul gaawu nga xam ne sañ nañ caa napp moom mel na jën yi dañuy daw ba sori duñ mën a napp ñu def ca pexe nag bu gaawoo ñu lal mbaal yi sànni mbaal yi jën yi du ko dugg ba bari ci ëllëg saa ca dibéer ja ñu ñoddi mbaal yi daal di napp xam nga loolu pexe la waaye ca dëgg-dëgg xëtt ndigal dong la ñooñee nag ñoom lañ soppi woon ay golo ba tey ñenn ci banu Israil Iisa ibnu Maryam ñaanoon na leen yàlla yàlla soppi leen ay mbaam xoox ñooñu nee nañu mooy ña yàlla wàccal leen bagaan googee id qaala alxawaariyuuna yaa Iisa ibnu Maryam hal yastatiu rabbuka an yunazila aleyna maidatan min as-sama qaalat taqullaha in kuntum muminin dañ ko ndax suñu boroom nangu na noo wàcceel ak bagaan gu bàyyi ko ci asamaan xiisaa ne leen loolu day ëpp naa wax ñu ne ko danoo bëgg rek bu yàlla wàccee bagaan googu ay xéewal nekk ca nu lekk ca gën a am yaqiin mu wóor ne ca dëgg-dëgg yàllaa la yónni te li nga woote dëgg la xiisa daal di ñaan sunu boroom ne ko allahumma rabbana ansil alayna tam min as-samaa takunu lana iidan li awwalina wa axirina wa ayatan minka warzuqna wa anta xayru rasiqin sunu boroom wàcceel nu bagaan koo xam day bàyyi ko ci asamaan nun ñëpp nu maase ci xéewlu ci ñoom ñëpp ñu xamee ci ne sa kàttan jëmul fenn te man mi danaa wàcce day bagaan gi waaye bu ma ko wàccee képp ko ci xam ne walbatiku nga weddi danaa la mbugal mbugal goo xam ne mësuma koo mbugal kenn ci mbindeef yi mbaa boo xoolee laa uxadibuhu nga xam néewut lam uxadibhu nga nekkoon ku ci weddi gannaaw bu ma wàccee bagaan gi danaa ko mbugal mbugal gu ma dul mbugal keneen ku bokkut ak moom laa uxadibuhu ahadan min al alamin metti mbugal gu mës a kenn ak mbugal gu mës kenn am na addis bu ne mu def yàpp bu leen wënc bu leen denc dara mu jëm ëllëg ñu bañ a topp ndigal denc ca yàlla su loolu ak i mbaam xoox un silatil maidatu min asama xubbusan wa laxman fa ub allah yaxunu wala yet am mbooloo fuñ tase rek war na ci jéem jubbanti buñ gisee ku jàdd yoon ñu gàll lu ko neex def loolu biñ bindee seetaan lu bon rek bu yàlla dee wàcc ba day maasale ñëpp ña jub laay boobu ñu jàng ma nga ci àll tolloog juróom-ñaar fukk ak juróom-ñaar jëm leen alxaqu dëgg ga ku mu soob fal yu umin na gëm wa man shaa soob fal yëkk na weddi laay tolloog ci di bokkaale ko weddi ne leen alxuraan ji muy dëgg gi bàyyikoo ci seen boroom soob na gëm ku mu soob na weddi wax yi nu tëkku la ndee jubluwut wax ne ku mu neex weddi ku mu neex gëm te gëm ak weddi ñoo day tëkkoo rek li ko tàmbalee ci qulil xaqu min rabbikum ne ko neel neel jooju ndigal lu jëm ci yonante bi ku gëm yaa xam ku weddi yaa xam ci kaw rek nag tëkkoonde ka gëm mooy jariñu faaw mooy loru faaw wa qaala taala xaral maanaam leeralal biralal bimaa ci li nga xam ne tu maru def na la ko digal ba tey foofu yàllaa fi digal yoonal bi mu leeral lim ko yónni mooy mu wax ni man mi yàllaa ma yónni nee na ngeen gëm ko te wéetal ko te topp ko bañ koo boole kenn mbaa lenn ndegam na ne ko leeralal loolu ba tey loolu ndigal la wala ma nga ca sóoratul xijri laaya ba tolloog juróom-ñeent fukk ak ñeent wa qaala taala an jay naa musal nanu allazina ñi nga xam ne yéen xaw na doon nañ tere xani suu i walis lu bon xani suu i wa naa te nu jàpp allazina ñi nga xam ne zalamoo tooñ nañu bi xadaabin ci mbugal ba isin gu di aji tar day max naam shadidin bi maakaanoo ci sababus lañ nekkoon yaf suqoona di ko génn ci topp lu ma nga ca saaru al laaya ba tolloog téeméer ak juróom benn fukk ak juróom laaya boobu da caa waxaat moom sunu boroom yahud yañ aaye woon napp jën ca bisub gaaw ba dañ defoon pexe moomee mbaal jën yi ci bisub gaaw bi bu ci ëllëg saa gaaw bi jàll ñu door ko napp ba ñu xëtt ndigal dafa am ñu fa teew xam ne lii jaaduwut ñu aay leen ko ba noppi nag sori leen bañ a bokk ca napp ga am ñu ñëw ànd ak ñoom ca napp ga am ñu ca maandu nëpp ñu waaye nag taxul ñu aay itam ñee napp suñ boroom nag leeral na ni moom ña napputoon ba noppi aaye ñee napp boole ca ñoom la musal leeral na it ne ña defoon napp ga ñoom la alak alkande joojee waxul dara nag ci ña nga xam ne napp ñu waaye aaye wuñ ñee napp bi xadaabin ba isin loolu mooy njàngum xafs bu dee ci warsu bi xadaabin biisin jàng loolu ma nga ca al